taxatu loolu. Ah, tension bi ni mu mel nii ñu bëri am ragal am ti tàngee est-ce que jaaduwul acteur politiques yi teg def bal a terre. waaw loolu ñu ñu ñu ñu xool nu ñuy. waxtaanee c'est tout le sens c'est tout le sens de l'appel du dialogue du président de la République. président de la République dafa bëgg ñëpp toog ñu waxtaanee mais lu ñu ragal ci waxtaan nañu waxtaanee lépp koo xam ne exclurul dara ñu waxtaanee lépp. ñoom il le disqualifie. parce que nee nañ moom warul warul warul cee bokk. d'abord un d'abord un mën na nekk joueur. nga ne yaay Mm-hmm. mënoo nekk joueur ci match de football nga ne yaay da vérifier licence jàmbur kii bokk ak ku dul bokk ñaar ñoo ko mën a décider conseil constitutionnel bu ñuy déposé candidature yi Karim Wade déposé wutoon candidature am. Mm-hmm. ñu rejeté ko. mu nangu coow na xeex xeex na xeexam mu nangu ñi nekk PDS yëpp danañ voté. Mm-hmm. malgré li leen dal donc aujourd'hui ici amul benn citoyen sénégalais bu mën a wax ni diw du nekk candidat kenn mënu ko. bu tam loolu bu fekkee loolu la ñu yaakaar pour stratégie pour arriver au pouvoir c'est une stratégie totalement vouée à l'échec